Euh, Donc attends Charlotte, qu'est-ce qu'il a dit euh... Là, là, hey, eh, man. Le live tweet, le live. Putain, mais j'ai même plus de batterie pour le live. Fatima Aminette ah, Bienvenue Avocat là Pas avocat là Oui, dans la vraie vie. On était là et puis... kan mbir mi xam nga war a am mbir mi yow juge mais avocat yi suñu ñëwee ñaan renvoi ba mu mat ñetti yoon war nga lu leen ko mën a jox te ñu ngi woon ci ñaareelu renvoi bi ñuy laaj donc ñu ne ko donc ñun dañ day laaj man sax maak ko ko wax ma ne ko alinéa 2 laa lay wax nga appliquer loi bi ma ne ko alinéa bi moom moo la ne yow yaa am la police de l'audience du mu ci teg moom moo di dee donc avocat yi am nañu droit ñaan renvoi donc ñu ngi ci ñaareel bi war nañu am ñetteel donc donc ci ñetteelu renvoi bi donc moom la ñu mën a bénéficier président bi da ko renvoyé sans wax ne c'est ultime sans wax le autre chose. Ousmane Sonko état de santé am. Ousmane Sonko normalement médecin bi lu mu ko normalement waru sax dem këram dafa war a dem clinique parce que médecin bi xool na ko examiner ko nee na état am dafa laaj ñu hospitaliser ko. bi nga xam ne nee nañ sotti nañ ko ko ci biir audience bi. non ci biir audience bi. substance bi ñu ngi ko ko sotti ci biir otoom oto bi mu nekkoon dafa njëkkoon nekk ci otoom gars yi bëgg ko génnee mënuñu ko génnee Guy Marius Sagna fexe ba mu dugg ci beneen oto foofu lañ ko fekk gazé leen soo leen xoolee mbubb mi sax dina takk loolu dafa mel ni kaani kaani bu xonk waaw médecin bi sax nee na gis nga nu mu taqee noonu même soo ko jëlee dugal ko sa bët day dugg donc. dañ ko atteindre sérieusement dafa gën a dëgër sax maître Ciré Clédor parce que moo gën a nekk gone actuellement normalement war na ñibbi na war nañ ko yóbbu nañ ko ci ambulance bi évacué maître maître Étienne Dione avocat maître Étienne ngeen amoon noonu bokk ci avocat wu maître ngeen amoon avocat wu Ousmane kii cadre Khalifa Sall ngi noonu. Khalifa Sall président Khalifa Sall moom ngeen seen noonu moom mooy ñëw gis ngeen actuellement. Khalifa Sall la noonu ñoom ñëpp rek dañu ñëwoon ngir soutenir ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dégg ngeen ñu wax nga xam ne moo di Ousmane Sonko dañu koy yóbbu clinique jamono ji ndax état de santé am dafa day waar actuellement nee nañ dañu koy yóbbu clinique ndax dañ ko sotti benn substance bi muy ñëw fii lu mel ni gaz ñu ne mbubb mi sax dafa xonk ndax li ñu ko sotti dafa mel ni rek kaani moo mettre clé d'or actuellement nee nañ loolu moo jàpp mettre clé d'or ba ñu daal di koy yóbbu hôpital donc Sonko tamit ñu ne la même chose la ndax li ñu ko sotti li ñu sotti Maître Clédor rek la ñu ko sotti dafa génn a féetee ndaw moo tax affaire bi rek njëkk sonal ki nga xam ne moom mooy Maître Clédor mais ñoom ñaax ñoo yem li nga xam ne gazé nañu leen ko. gisee kii Khalifa Sall Khalifa. Khalifa Sall nee na am na point de presse 17h. PRP Khalifa Sall nee na am na point de presse 17h donc peut-être li mu bëgg a wax yëpp rek fa la daal di waxe moom mi Khalifa Sall donc actuellement nañu xam ni rek Ousmane Sonko. état de santé xaw na am ay gis ngeen honorable Ramabodian moom ngeen seen noonu muy dem ci oto bi moom la ñu gaañoon démb ci tànk daal di koy gazé moom ak Guy Marius Sagna mais ñëw nañu teew li nga xam teew la rek li nga xam ne mooy procès bi actuellement nag kii di Ousmane Sonko état de santé am demeewul noonu ñu ni ndax rek euh, dafa sonn jamono ji te il faut rek ñu yóbbu ko clinique ñu ne li ko dal nag euh, rek takk der yi ñoo ko daal di teg ndax ñoom ñoo ko sotti benn substance ñoom ñi leen di takk der yi ñoo sotti soon Sonko benn substance moo tax actuellement état de santé am demeewul noonu dañ koy daal di yóbbu ci benn clinique de la place. xale yi patriote yi daal dinañu koy wax ñu ne lépp loo xam ne rek euh, dina ko dal dinañ dem rek wax euh, kii ko euh, dinañ ko réclamer ndax rek ñoom ñile ñoom ñoo ko ko teg. lii mooy kàddu yi nga xam ne daal nañu ko fi yëkkati ñoom ñu nekkoon ci biir salle bi euh, dégg ngeen itam rek ñu ni euh, léegi actuellement euh, ñoom nag ñu procès bile euh, euh, daal ñu koy dàkk ba le 30 mars euh, dégg ngeen li nga xam ne rek honorable Etienne daal dina ko yëkkati nee na Ousmane Sonko il faut que rek actuellement day dem clinique lay dem noonu loolu la wax nee na Ousmane Sonko demul këram clinique la jëm ndax état de santé dafa xaw a métti jamono ji ndax li nga xam ne mooy substance bi ñu sotti méthylclédor rek moom la ñu ko sotti actuellement nee na méthylclédor daf ko gën a féetee mag moo tax affaire yi gën ko sonal mais ki xam ne mooy Ousmane Sonko li nga substance bi ñu sotti maître Clédor moom lañ ko sotti ci biir oto maître Clédor bi mu fa bañee génn ndaxte ci otom la nekkoon Guy Marius Sagna daal di koy euh, génnee dugal ko ci li nga xamante ne rek moom mooy automatique euh, lay door actuellement nag yëf yaa ngi noonu bi les procès di nañu koy dàkk euh, ba le 30 mars 2023 merci Patrick Sarr nekkoon ci biir loo ñu mën a wax yow nekkoon ci biir. bon lu nekkoon ci biir xawoon na yëngu tuuti rek. danga ma ko bëgg a imposer xar xar waa pour pour bi. waaye pas exceptionnel. le juge a simplement dit renvoi au 30 mars. parce que dafa am renvoi simple am renvoi ferme am renvoi ultime am renvoi ultime bis am renvoi exceptionnel tey ñu ngi ci ñetteelu renvoi bi dara terewul le 30 mars su ñu amee ay arguments yu solide ak raison yu valable ñun plaider la ñu bëgg ci affaire bi ah. ragal la ñu plaider bëgg nañu plaider te am nañu ay argument yu solide mais sooy plaider dafay fekk nga nekk en état à tout point de vue donc si le 30 donc nous sommes pas dans des conditions de plaider dinañu ñëwaat taxaw ñaanaat renvoi bi. ak avocat c'est pas stratégie Ousmane Sonko dafa am une dimension internationale donc des avocats se sont proposés de venir am na un franco-comorien am na un avocat burkinabé pourquoi moom mu ñaan renvoi bi. parce que démb umpalewul kenn ne Ousmane Sonko dañ ko tëj këram mënul woon génn te avocat bi démb la ñëw mënul woon génn te kenn mënul woon egg ci këram avocat bi nee na man jox nañ ma dossier bi mais dama am pour gis ak toog ak waxtaan sama client ba léegi waxtaanuma ak moom man avocat maître Guy Hervé Kam man may ñaan renvoi pour que man waxuma ñeneen ñi sax pour que man ma mën a am temps waxtaan sama client préparer la défense après pour mën mën ko défendre bu baax voilà maître Ndiop waaw waaw ok waaw xaaral ma ok ok waaw acca Voilà, non, non, non, non. Au problème. Ah, ta face, wa. Oh. Doon naa leen ko bu yàgg. Moo leen fekkee fee. Laaj ko. Laa bu ñu ci laaj soxna si. Xool du moom. Waaw, donc yéen ñu ñuy euh, teewlu ci Sénégal 7 ak Dakar Buzz aussi gis ngeen ne procès bi audience bi renvoyé nañ ko ba le 30 mars prochain parce que nag les avocats d'Ousmane Sonko thèse yu ñu soulevé pour obtenir le renvoie mooy ne Ousmane Sonko bu mu doon ñëw dañ ko brutaliser mais moom tamit moom ak avocat maître Ciré Clédor Ly bi nga xam ne ni fu mu toll nii il est mal en point ba fu mu toll nii envoyé nañ ko hôpital et tout te ñoom ci seeni stratégie de défense maître Ciré Clédor Ly da cee am rôle donc mënul ñàkk teewee procès bi donc